ne ma damay jël kàddu dama ne woon waatu kàddu amuñu dara la ñuy wax ak sëñ Mountakha ñëw fekk moom waaw déglu ko mu wax ñu lim. ak fas yéene ko te ñaan ko kattan duñ ko ànd ak ma ne leen loolu dong laa jàpp ne loolu la ñu war a wax waaye ñu ne kon day gàtt lu gàtt nañ feeñal dara sëriñ bi. li ñu def seetal teew nga jiitu ñu ci teraanga joo xam ne mënuñ la ko xalaatuñu fuñ la ko mën a fayee. teraanga jooju. nga jël li gën ci lislaam. tànneef la boo xam ne nañ ko tànn tànn ko indi ñu ko fa muy si mu tax a say sa waaye li jiitu loolu. si bay sëriñ say tukaan képp la ko xam ngir leer ngir laabiram ngir baaxam ngir doxin wi nga xam ne moom ngay dox ci yéwénal mbiru mbindeef yi muy tànk ci loolu di ko def ci biir Toucar ba Toucar daj Toucar képp xam bay sëriñ say nii sëñ Muntaxa Mbàkke la fi nekk sëriñ ñu ne la ñu ci dara te mënu laa xam lu ñu wax day tuuti waaye faw ñu wax. daara jooju a Muntaxa Sakkale mii nga xam ne kenn la xam taarif si a Tuuba ndax kenn la ci sa xàlle weer wu ne mu ñëw ci daara jëmmal fa jëmmal fa jëmmam nit ñi gis ko xool ko mu ba leen bëtu yërmande te loolu yëpp yow a rek yow yaa ñëw rek am na ñoo xam ne boo leen gisee da ngay xam ne gàllankoor moo tax. waaye yow sa bopp yaa bëggoon a ñëw. yaa man wal fadlu maswal xayr. waaye kon damay jàll ci kéemaan yenn ci kéemaan yi daara ja daara jooju nga xam ne sin bi. yaa ngi ko xam ne sànn defal ko kenn kéemaan bi bokk na ci. ma wal xufaat malaasul murmiliina ma am. xam nga magum jëmm foofu la nga leen baasi ca daara ji fi mu ne wàcc na alxuraan kéemaan googu jamono ju may wax ci kéemaane daara yi Toucar ma ne kéemaan ñaareelu kéemaan bi si mooy am na jigéen ñu fa wàcc alxuraan ak ma jone ak ma jone ci weer ak ma njëkk bu njëkk ci dañuy daje jàng kaamilu alxuraan daal di ñaan sëñ Mountakha Mbacké yàgg fi doon ajuma ji ca tombaat ci weer ca tombaat ñu daje ñaanal way dawlo yi loolu sëñ bi ku xam Toucar buñ la ko waxee da nga ne mënta nekk da ne mënta nekk kéemaan yi nga def ak sa daara ji ak ña nga fay yebal loolu xejul suuf suñu ko mën a wax waaye Mbàkke jigéen ñi àllarba bu jotee dañuy ñëw bale kër ga lay ko ba mel ni suufu Tuuba bu alxames jotee lu fay tilim ñu ñëw fóot ko ba mu set laajuñu kenn saabu laajuñu kenn om kettuñu def ah, ñoom seen biir ñooy jël seen alal jënd saabu jënd om ak la war a àndal yëpp ñoo fóotiyeer yi dong ngay om si bi moo tarifan sëñ bi jëndi berab ba suuf sa boo ne cëpp ah, da ngay yëg ne yaa ngi Tuuba boo génnaatee xëy rek ngay door a yëg ne yaa ngi ci geneen jaww waaye jawwal Tuuba boo ah, xam ne yàgg ñëw Tuuba da ngay sécurité boobu ñu wax nga xam ne surtout wane am kóolute kóolute boobu booy dugg foofu rek. asatu naxaa bi juudi fajum aajo itam foofoo ci gën a gaaw. dalu xel itam foofoo ci gën a gaaw. Eh, Mbàkke bi mu ko defee. beneen poñ bi mooy mbooloo gi mbooloo ñii nag nga gis tey mbooloo ñëw ci mbooloo mi nan la def mooy. waaw daal foofu si xaar sëñ Cheikh Aliou di fa ñëw sëñ Aliou Mbacke moo fa dund. ba fii may wax ak yow sëñ Cheikh Aliou dafa ñëw ak mën a ngal. waa Daaru Salaam sëñ Basiir mu sëñ Cheikh Bass nen sa rak di sa taalibe moom itam ak sëñ sëñ sëñ Cheikh Bass mu sëñ Abdou Khadir am fa njaboot sëñ Cheikh ndigal sëñ ne nem sëñ أرضيت ربك أرض الورى بدعا أمسك wone cofeelam ci dëkk yi def ci daara. amate hee bindee ci benn kàddu ñu génnal Serigne Touba ci ronu Serigne Mountakha mbooloo nii moo desee ci dëkk ren mooy seen at bi. lawla maxaafatu rabbi lii ñu nekk kasanan antal azim waaye dañoo wax ne kenn waru leen a mën ci naal yu rëy yi nga naan. muy université bi. waaw dugg leen ba ci biir. naan ñu naan ci xaside yi këru xaside yi kenn waru leen a mën a kenn waru leen a mën a dëkk ci li nga xam ne mooy doxinu taalibe bi nga xam ne waaye loolu nag dañoo ñëw tey liggéey. ñaan la kattan mën ànd ak yow. dem ñu mën a ànd ak yow ngir sa yéene ci tukaar ak. Mbàkke suñu ñaan mooy yal na sa yéene ci tukaar ak. Mbacke suñu ñaan mooy yàlla na sa yéene ci suñu Tuubaa ak Mbacke bu ma doon wax bu suba. walam tasal bi jëli asaka yi li ma bëgg a wax du ma ko mën a wax te yéen kawe na lool te wóor na ma ne suma làmmiñ bi mënu ko jëlaat waaye li ci màgg mu ne fa tabaarakallahu jërëjëf jërëjëf si mu ne jërëjëf sëñ Assane Diouf mu ne kàddu yi ñu bëggoon a wax lépp wax nga ko mu ne dafa amoon yéen a jógee ca Touba mooy lislaam nekk ba ta sax fa mu ne ak taalibe nekk ba ta sax fa mu ne loolu la yéene woon ci Touba mu ne alamin mu ne ñeneen ne dafa danañ ko wax mu ne diggante bi yàggul mu ne waaye li fa feeñ tukaar la mu ne lu mën a màgg la lu mën a yaatu la mu ne te lépp di yiwu àdduna ak yiwu alaaxira mu ne noonu la demee mu ne kon def mu ne ñu ngi leen di sant di di leen sant suñu borom yi daal. di leen sant Serigne Touba itam di leen sant di leen gërëm bu baax mu ne ndax ni ngeen def ndoo yéene ji koy bi mu ne loolu alhamdulilah rabbil alamin yéen na bu baax mu ne doole na yaakaaram bu baax mu ne gën naa yokk ay yéene ci ko baax mu ne gën naa am xel xelam gën naa dal ci ko baax mu ne kon taxawaa nañ taxawaay bii ngeen def mu ne ko weesu yitte ji mën na ànd gi mën na mu ne taxawaay bi mën na kon suñu xol na incha allahu mu ne dañuy gën a yokk suñu laxasaay rek mu ne fas yéene fa liggéeyal sëñ Tuubaa mu ne moo yitteem ñoo ngi leen di sant a baax di leen sant bu leen gërëm bu baax a baax mu ne bokkoo ànd yéen rek mu ne ànd yéen rek sax dàkk ci lislaam sax dàkk ci liggéey lislaam sax dàkk ca taalibe sax dàkk ci taalibe sax dàkk ci taalibe mu ne sax dàkk ci liggéey sëriñ bi te yàlla rek a tax mu ne loolu rek la jëlee Touba waaye nag gàttal ngeen ko mu ne yaakaar bi dolliku na jërë ngeen yoon waa ngoog rek mu ne bu leen ci ne bu leen dara bu leen jàpp ne dara jàpp ne mu ne lu ngeen mës a ci nitu diine lislaam ci barab boo xam ne lislaam moo mu ne bu leen jombal dara seen bopp na ngeen xam ne yéen yeyoo ngeen lépp ñu lu baax mu ne ko na ngeen góorgóorlu rek yoon waa ngoogu rek mu ne taxaw di dem mu ne taxawu njaboot bi dimbali ba ñoom ñëpp ñu yaroo ci lislaam sàmm leen ci mu ne taxaw leen ci baax a baax mu ne noonu moo siyaasa mu alxuraan moo jiitu lépp kon noonu rek la na ngeen góorgóorlu baax a ci njaboot gi ñu jàng alxuraan bu jàngee alxuraan xam-xam dana yomb lépp li sax yomb ndax alxuraan moo jiitu lépp mooy ndey lépp. mu ne kon ndokk ba nga xam ne am ngeen yéene nga ko soxla ba ngeen jiite alxuraanu kay mu ne ko am na yaakaar fu barab barab mën a àgg ci lislaam yéen da ngeen àgg foofu incha allah waaw kon jërëjëf ngeen jëf. di leen gërëm bu baax. fas yéene ko ànd ak yéen bu baax mu ne ñoom ci seen wàll. jërëjëf. waja Production GP Gabon Production ak Darou Minane TV les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise